salaamaaleykum mbokk yeeg xaritu internet yi ñuy seetaan sur Sunugal 24 JT People de retour ma ci ànd ak sama frère l'animateur bi nga xamante ne nii macha allah nee naa ko foo jaar gën a foo jaarul muy Diagne naar Diagne bonsoir. bonsoir Badiane bonsoir chez vous soyez les bienvenus chez sur Sunugal 24 l'information à sa juste valeur quel plaisir de vous retrouver sur le plateau de JT People j'ai eu à le dire JT People c'est le journal le premier portail jëm ci people fii ci Sénégal lu jëm ci buzz. potin cas rumeur affairage bachiclash c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs Sunugal 24 est disponible aussi ci plateforme digitale yëpp que ça soit Facebook Instagram Twitter et YouTube mais aussi mën ngeen seetaan sunu site bi nga xam ne moom moo di www.sunugal24.net l'actualité nationale comme internationale c'est ici que ça se passe bonsoir Badiane lu bees. mais Diagne dara beesul xanaa sa jaune sa orange noir moo bees. Ah, trois trois couleurs laa laal band band eh, eh, eh, da

jox ko cent mille man ko léegi dindil zéro yi ñaari zéro yi ma ma may def. journée cent mille moom métti na di. Xadija de deuxième may na ma la toog. bu ko defee nga waat d'accord ma Xadija dafa am jëkkër ci kër gi ba pare. d'accord ma yow lu muy soxore Xadija bébé nga xale nga. aja jañaar d'accord d'accord d'accord. <laughs> allah moom Mia se confesse. d'accord loolu nag moom moo doon <laughs> yéene kaay bu fus <laughs> ni nga ma joxee chapeau bi xorom na de joxaat ma chapeau bi nga ni nga ni allah moom Mia se confesse. maa <laughs> kii sëñ Tuubaa Mbàkke man yow laa wër yow laa wër ba fajar jot ba dem daal tëdde alors mi ngi noonu mbokk yi dañ koy démarrer ak euh, une artiste très connue au Sénégal de son vrai nom Mia Guissé nag nekkoon ci groupe Mabo groupe Mabo nag doon accompagner sénégalais yi ci ay wëy yu neex mais aussi ci ay wëy yoo xam ne lay def lool moom nag euh, bi muy def li nga xam ne moom moo di carrière soloom dañoo gis nii euh, dafa gën a propulsé wu jëm à l'avant ci seen musique sénégalaise moom Mia Guissé nag sunu ay confrères seen people ñoo ko jëloon ci benn entretien spécial muy wax que je regrette vivement d'avoir fait pleurer mes parents loolu nag moo doon image wala moo doon vidéo bu def buzz vidéo bu viral sur la toile ñuy gis ki nga xam ne moom moo di artiste bi di Mia Guissé di wax bay jooy di waxee xol Mia nag man dama am ñewental ci moom dama dama dama ko yërëm parce que Euh, dafa doon jigéen boo xam ni jigéen bu bu brave la bu am courage euh, saa yu toogee rek souriram ngay gis euh, wax naa ni moom moom reetaanam rek mën na mën na mën na faj lu bari comme yow ni nga amee bu garaaw moom yaa reetaanam rek day faj lu bëri même bu nekkee ci naqar sax bu reetaanee da ngay foog ni kii si àdduna moom moo gën a nekk ci ci paisible or que bon am na lu ko métti wax que ni mm, bi muy bi muy bi muy am lu ko naqari ci ay wajuram moom mooy que ni bi mu leen di jooyloo que ni ay wajuram dañ ko tere woon am luñ ko aaye woon moom mu dem def loolu ba ay wajuram waajuram sax moom pour mu jot leen dafa métti woon euh, bu leen woowee téléphone ay wajuram bu góor ak bu jigéenam daal di koy daal di koy bloqué amul woon accès pour jot ñi nga xam ne moom moo di ay waajuram loolu doon na lu ko métti woon trop trop trop ci biir émission boobu mu wax sax que ni. Euh, negam ay ko ci mere bi bi mu amee doom bu góor ba far doom bu góor boobu daal di wuyu suñu borom mu doon lu ko métti lool lool lool moom Mia Guissé loolu la wax ci sa po je regrette vivement d'avoir fait pleurer mes parents. Mm-hmm. Diagne bi di daw yaram lool. képp ko mm-hmm. seetaan rek soo jooyul sa yaram daw na comme li nga wax léegi moom su kontaanee dafay rey. Mm-hmm. su meree dafay rey am na ñoo xam ne yàlla moo leen bindee noonu. mais li ñenn ñi di wax rek dañ naan sëy boo xam ne ay parents d'accorduñ ci da nga war a def attention parce que mag mun na taxaw di gis lu sori. Euh, xale ba taxaw te du ko gis euh, moom daal ndeysaan daw na yaram ak moom nga xamante ne nii dafa génn àdduna daw na yaram lool waaye lépp rek mu nekk jàmbaar voilà nekk muñkat nekk bañkat ah bu mu di jooy nag su dee jooy ñi ko bëgg dañuy daal di ànd ak moom di daal di jooy acca <laughs> Eumeu Sène moo ngi sànni xeer Balla Gaye de c'est vrai ñaari copains yi loolu tamit doon na doon na doon doon na vidéo wala capsule boo xam ne c'est très viral sur Balla Gaye 2 Eumeu Sène combat boo xam ne c'est à l'avenir mi ngi ñëw soreetul dara ay nag dañoo gis Eumeu Sène ci une vidéo muy wax que hmm, Balla Gaye 2 na def attention parce que Aziz Ndiaye jox na ma xaalis bu bëri dimbali na ma ci moo doon loo xam ne supporters yi ñëpp kontaan que dafay indi li nga xam ne moom moo di non violence ci lamb ji Eumeu Sène raay le lion de Guédiawaye Balla Gaye ko wax que ni attention parce que kii di Aziz Ndiaye jot na ma jox xaalis bu bëree bëri jàppale na ma ci combat bi ah, loolu nag moom moo doon wax dëgg yàlla vidéo boo xam ni reprendre nañ ko ci réseaux sociaux yi mais doon na vidéo boo xam ni aussi ah, mi ngi passe en boucle sur les réseaux <laughs> ay reetaan ah? waaw mais ci ay jox na ma xaalis bu bëree bëri loolu day wan ni rek bëri réeré wuñu supporters yi bàjjan ñoom ñoo réeroo di di di di féewaloo ko dóorantee ko def violence ci làmb ji mais mbëri ñoom xamante nañ seen kër yi dañuy déggante amante nañ ay téléphone la preuve am nañ association ñoom seen biir mhm. kon ils se connaissent quoi ah, ah, mhm. ñoo paree ñooy àndaat même suñu pareewul sax ñooy àndaat kii di Mame Ndiaye Savon toj na appelu Seydina Limamou Laye <laughs> Mame Ndiaye Savon la star de TikTok a la vedette des célébrités la star la star de TikTok. ah TikTok. waaw ah. ok continuer. <laughs> waaye li nga dang ma yow. damay ruubee dawal. <laughs> yow waxoo star àdduna bi di ah, star TikTok. mais yow yaa ngi saboté Mame Ndiaye a vedette la de euh, des stars au Sénégal moom nag ki nga xam ne moom moo di Mame Ndiaye Savon nekk ci euh, ci réseaux sociaux yi di def des des choses je peux dire énormes di def des choses importantes ci domaine am mais en tout cas euh, dañoo gis ci appel laayeen bi moom Mame Savon mu daal di lool ci réseaux sociaux yi ñëpp naan les influenceurs les artistes les animateurs comme moi les journalistes les nga xam ne ils nekkoon ci appel laayeen boobu noonu ñoom ñëpp Mame Ndiaye Savon dafa ñëw jël vedette bi ci ñoom ci sànce ci baat baatere images yi bi ngeen koy gis noonu les images parlent mais aussi les vidéos parlent d'elles-mêmes moom Savon nekkoon ci appel Mame Limamou Laye bi def sanceem bu baax ànd ak délégation nekkoon fi nga xam ne moo di kër hmm, la jet-setteuse l'influenceuse je peux dire l'animatrice euh, kii di euh, Ya Awa Rasoul nekkoon ci këram mais aussi génne xaalis bu di ko battre jànkat yi nekkoon ci kër ki nga xam ne moom moo di Ya Awa Rasoul en tout cas c'est ce qui a fait le buzz sur la toile ki nga xam ni moom moo di Mame Ndiaye Savon Badiane Mame Ndiaye ngi noonu rek moom a génn daal di yàq lu mel ne que tamit journaliste yi di leen xas ndax moom ràññeewul journaliste yi ak ñi nga xam ne dañoo jàng lool daal dina tax mu ne yéen journaliste yi daal di wax joo xam ne daal ñenn ci journaliste yi rafetlu wuñ ko benn yoon. Euh, <laughs> dóor dóor dóor dóor dóor dóor journaliste animateur ay doom bàjjan lañ ah. lan ngay rey. Mame Ndiaye sama dama jaxase journaliste ak animateur sama ah, réalisateur xam xameewu leen ah Mame Ndiaye ah, peut-être xameewu leen ko Mame Ndiaye dama la bëgg a jël interview mun la yow ban journaliste bi fan nga ne et ça aussi c'est c'est à préciser uh-huh. journaliste ak animateur c'est catégoriquement différent si un animateur il anime des émissions journaliste nag kooku dafa respecter li nga xam ne moo di éthique ak déontologie

defaree ko noonu maam Ndiaye Savon sama xarit tuuti comme li sama xarit bi wax macha allah Bijou nekk fii ci kër gi li mu wax dafa daal di am solo mooy ñi ngi ciy dox ay jéego yaakaar naa ci kanam tuuti dinañ xàmmee ñi jàng ak ñi jàngul. Mhm. Euh, loolu daal am na solo loolu loolu mu wax. au poursuit kii di Pape Diouf tamit ma nga woon ca appel ba moom Pape Diouf. oui lui aussi le leader. Euh, le leader du vocal du génération. yow la dal rek génération consciente kii may rey ak tool kii may rey ay eh, waay donc dafa ngi jëm si ah, doar alors Pape Diouf moom ci appel maam Limaamu Laay bi moom tamit def ba balam bu baax hmm, wàcc ci kër ki nga xam ne mooy di tayeeram bu mag boobu doon demoon doo di ah, siyaare gi doo di nem doon nemmeeku ki nga xam ne moom moo di taalibe maam Limaamu Laay waaye li def buzz sur la toile nag mooy mooy vidéo bi nga xam ne Pape Diouf dafay wax que ni moom du may xaalis ci mbooloo ça a créé beaucoup de polémique ça a créé beaucoup de euh, ci réseaux sociaux yi commentaires yi bëri ci ay commentaires yu négatif mais aussi bëri ci ay commentaires yu positif ñu si bëri dañoo wax toftal mel ni commentaires yi ñii dañ naan Pape Diouf dafay gaaral kii di euh, Wally Balago Seck parce que on tendance di gis que ni Wally moom dafay may ci public mais Pape Diouf moom il n'ose pas di jël xaalis di battre nit di ko may ci public nee moom bu koy may ci bi ñëpp di wax que ni euh, kii di Pape Diouf est-ce que du dafay gaaral kii di Waly Balago Seck parce que moom Pape Diouf nee na du maye xaalis ci mbooloo internet yi la mhm. mhm. dafay maye ci mbooloo ko yàlla bindee moom tamit boppam la mhm. loolu du ma ci sori ndax li ma wax rek mooy ku nekk ak euh, yàlla nim la bindee maa la wax loolu maa la wax loolu ay te ñu dem Coumba Gawlo Seck retour au bercail. C'est vrai l'une des plus belles voix de la musique sénégalaise. La diva, la voix d'or, elle de retour, sa y est, retour au bercail comme tu l'as si bien di ki nga xam ni moom moo di Kumba Gawlo Seck après une longue absence sur la scène musique sénégalaise sénégalais yu bëri doon laajte Kumba Gawlo sekk fan la nekk sa y est après maladie wala après euh, jàngoro bi mu amoon ci voix am pour bañ a woyati moom Kumba sekk ñibbi ñibbisi na Sénégal espérons espérons que ni il va refaire la musique pour bégal le mélomanes mais aussi il va il va refaire la musique pour euh, ñi nga xam ne dañu koy bëgg soo gisee ci image yi les images parlent d'elles-mêmes dañuy gis que ni foofee ca Go Média bi muy ñëw ah, foule bi bëri woon na lool ñëpp doon ko tertu y avait beaucoup de aussi parce que amoon na ci ay soppe yi ki nga xam ne moom moo di Kumba ah, Kumba aussi da nga gis ah, oh, ñun ñu ngi koy ñaanal retour bu bu baax ñu ngi koy ñaanal carrière bu bien mu ñëwaat defaat des spectacles aussi proposé mhm. daal di koy musal ci cat loolu dafa nekk loo xam ne dañ ci kontaan ndax ku ma mhm. gawlo su wayee rek da nga koy daal di euh, mhm. déglu ndax la mu wax way la xam way la gëm papaam daal di koy yar ah nee na moom mënul bàyyi way kon dañ koy ñaanal li nga xamante ne nii ñëwaat na mu daal di tane yàlla mosul ko ci cat mu daal di éggule ak euh, sagoom moom ku mbagoo la sekk mais beneen cas bi moom est ce que duma ko xam nga xam nga jiitee people da ngay foog ne man a yow rek mais mm. waa réaction

Babou Dieng ñu foog ni fa la yem mu jóge fa dem ci concert u Pape Diouf ah. euh, créé nag bës bu bëree bëri ñu wax naan njàpp ba day bëgg a bàyyi Sidi Diop mais mais mais mais mais Diagne moom Sidi Diop lañ ko xamee te bi mu ñibbisee li mu wax ci soirée bi dégg ngeen ko mooy kii du musa daw du ko musa war man Sidi laa am mooy sam papa ah, loolu laa dégg dëgg la wala dëgg waaw <laughs> loolu waar ngeen laal <laughs> Dóor waar gi Dóor waar mooy animé émission ah ah beneen kaa bi ah. jeex na beneen kaa bi. ma ma jox ko biso wala ma jox ko Dóor waar. ayca ayca vas-y. <laughs> El Hadj Ousseynou Diouf maillot bi 5 millions lay jar bu Youssou Ndour grand boubam bi 8 millions lay jar. ça c'est vrai. Ça aussi, ça crée beaucoup de buzz sur la toile, beaucoup de commentaires sur réseaux sociaux qui dit euh, loolu nag li ko waraloon moom mooy collecte de fonds pour le pour la Turquie euh, xam nga Turquie nag séisme bi fa amoon xawoon yàq ay dégâts yu bëri euh, côté économie wàcce woon lool ki nga xam ne moom moo di Turquie seen économie xawoon def am nekkoon en baisse lii moo waral sax en première lieu l'État du Sénégal a débloqué un milliard de francs CFA daal di koy dëgtal daal di koy dëgtal nga xam ne moom moo di Turquie xalif général du peuple je peux dire xalif général de tous les sénégalais Serigne Mountakha Bassir yàlla fi yàgg loolu te ànd koy jox kii euh, waa Turquie si ndimbalu euh, saisi boobu noonu nga xam ne amoon na fa moom Serigne Mountakha yëkkati enveloppe bu de francs CFA daal koy jox ambassade bu Turquie bu nekk fii Sénégal pour ñu mën ci jàppale ñi nga xam ne moom di waa Turquie waaye yamuñu fa euh, collecte de fonds bi dañoo gis Youssouma Jigéen Ndour buubu la indi grand buuboom mais grand boubou bi biñ ko biñ tegee ci ci bi di ko jaay huit ko jëndee moom lañ ko adjugé yamuñu fa ñu jël mayowu la l' international moom aussi daal koy teg ci table bi di ko jaay bi ko adjugé ça coûté euh, li nga xam ne moom moo di cinq millions de francs CFA en total ñu boole millions ak millions de francs CFA pour dimbali ko ñi nga xam ne moom moo di waa Turquie bàjjan. mais jaañar gars yi am nañ xaalis de dañ naan Sénégal amul xaalis dafa mel t-shirt bi bu bëree ba bëri. bu bëree ba bëri trois mille lay jar. xam naa buñ ko doon jaay moom waa turki ngeen baal ma rek damaa damaa nag buñ doon bii de xam naa yi ñaata <laughs> ay 3 millions millions ay mbubu yu ah. millions t-shirt jaan ñaare ah. moom 5000 waar daal doy na waar acca loolu lañ leen indi loon eh, mooy nuyu Dóor waar mi nekk mhm. ci région bi jàmbaar bi waaye di nuyu bijou di nuyu borom kër gi bu baax a baax jaan ñaar ma bàyyi la rek nga daal ci saagat d' accord di nuyu bu baax a baax le directeur général Sunukot Sunukot moom mooy agence de communication bu fi la nekkee sa Parcelles Assainies en face terminus Dakar dem dikk kooku nag sama waay la kookoy le DG Bara chaque fois daf muy suivre nee ma jaañ damay ñëw sponsorisé JT People. oh ñu ngi lay xaar Sunukot. une agence bu mag jëm ci wàllum communication nekk Parcelles Assainies unité bu nga ne moo jàkkaarloog ah, terminus Dakar Dem Dikk DG ñu ngi lay xaar ñu ngi lay sponsoriser suñu boo ko defee doo ko merci beaucoup à tous ces Sénégalais ce fut un immense plaisir de vous avoir servi j'espère que ça vous a plu on se donne rendez-vous nous tous samedi incha allah prochainement fii ci JIT Sunugal 24 l'actualité nationale l'information à sa juste valeur ciao à toutes